muy téere bu am am solo boo xam ne dafay jàngale làkku arab fànn gi ñuy wax naxwu tey ñu toll ci baabu mansubaatil asmaa'i buntu tur yi nga xam ne dañ leen di nasab xam ngeen ne romb nañ buntu tur yi nga xam ne dañ leen di rafaa kon tey ñu ngi toll ci tur yi nga xam ne dañ leen di nasab من ألمان سوباتو ينغا خمنا دنين نصب خمسة عشرة فكلا أدروم وهي نوم المفعول به ماي مفعول به والمصدر أك مصدر وظرف الزمان أك ظرف الزمان وظرف المكان أك ظرف المكان والحال أك حال والتمييز التمييز والمستثنى أك المستثنى واسم لا أك اسم لا والمنادى أك منادى والمفعول من أجله أك المفعول من أجله والمفعول معه أك المفعول معه وخبر كان أك خبر كان وأخواتها أك أي موكم موكي كان واسم إنا أك اسم إنا وأخواتها أك أي مبكم أخوات إنا وتابع للمنصوب أك لب لو خمنا دفع طب لن نصب وهو موم ولا نيوم أربعة أشياء فكيف لأك آه، نينتيف لكم النعت مينات والعطف أك عطف والتوكيد أك توكيد والبدل أك بدل يويس جارنا نجيب يقود su ko defee borom téere bi tuddal na la fukk ak juróom yi nga xam ne ci aytur foo leen fekk ci làkku arab dañ leen di nasab mu lim ko nag ba mu jeex des na ko faram-fàcce benn par benn xamal la lan mooy al lan mooy al masdar lan mooy zarfu zaman lan mooy zarful makaan lan mooy xal lan mooy tamis ba mu jeex kon daf koy jukki benn par benn mu ne la baabul bi bihi bunt bi nga xam ne dañ ciy leeral lan mooy mafuulu bihi al mafuulu bihi wa huwa al ismu al mansuubu alladi yaqahu bihi al fi'lu mooy tur wi nga xam ne dañ koy nasab nga xam ne jëf ji ci kawam la dal mel na nga ne darabtu zaydan darabtu zaydan rakibtu alfarasa bi nga ne darabtu zaydan zaydan foofu maf'ulun bihi ndax dóor gi ci kawam la dal rakibtu war naa alfarasa fas wi kon fas wi moom mooy ki ñu war kon war gi ci kawam la dal loolu la ñuy wax al mafulu bihi wa huwa ma mafulu bihi moomu nag xismaani ñaari xaaj la dañ koy séddale ci ñaari xaaj dafa am boo xam ne zaahir la ak boo xam ne mudmar la fa zaahiru maa taqaddama dikruhu tudd nañ ko kom nga ne darabtu zaydan rakibtul farasa loolu mooy zaahir bi wal mudmaru nag xismaa ni moom itam ñaari xaaj la muttasilun wa munfasilun kon bàyyi xel bu baax la muy wax daf laa jëkk a wax ne la mafoolu bi ci boppam ñaari xaaj la zaahir ak mudmar mu xamal la lan mooy zaahir bi ci darabtu zaydan ak rakibtu alfarasa mu dikkaat ne la al mudmar moom itam dañ koy séddalewaat ñaari xaaj mu nekk muttasil ak fal mu tasilu bi nga xam ne mu tasil la mooy yi ma lay bëgg a am na naa isna asara fukk ak ñaar la fal mu tasilu isna asara fukk ñaar la mooy yi ma lay bëgg a tuddal wax ya ñoom nga ne darabani darabana darabaka darabaki darabakuma darabakum darabakunna darabahu darabaha dara darabahuma darabahum na boo xoolee dara ba nii da gis ne yaa gi nga xam ne ci la jëf ji dal mooy damirul mutakallim ji kii wax mooy ki nga xam ne moom la ñu dóor kon yaa googu mooy mafalum bihi mi darabana nuun gi nga xam ne mutakallim kii wax mooy wax ànd ak ñeneen nuun googu nga xam ne mo nek mafhulun bihi fof darabaka kaf googu nga xam moy kaful kitab darabaka dur nala wa darabaki nang ko top bama jeex kon demir yoy yëpp ay mafhulun bihi la bo len limé sen nim toll ji fuk ak ñaar su fekke al munfasil la momi dem nek isna asar fuk ak ñaar bo len boolee ko mu jox la ñaar fuk ak ñent yan ñooy yan moy al munfasil mo heye ñom iyaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahunna yooyu ñooy euh, maf'ulun bihi yi nga xam ne al munfasil la kon ñaari xaaj yi mi noonu al muttasil wal munfasil mu ñëw na ci gën gee faram fàccee mu ne la al maf'ulun bihi ñi nga xam ne ñooy jàngee làkku arab dañuy wax ne dana dagan nga wax ne baabun bi rafxi wa an taqola baabun bi nasbi fa in qulta baabun fa taqdir haza baabun ay annahu xabaru lmubtada wa ida qulta baaba fa taqdiru iqra baaba kon dagan na nga wax baabun wata ba tey wax baaba maanaam daal baabu al mafxulin bihi mel na nga ne lii mooy buntu mafxulin bihi wala nga ne باب مفعول به اقرأ باب مفعول به جنجل بنت مفعول به وهو الاسم المنسوب الذي يقع به الفعل mooy tur wi nga xamante ne jëf ji ci kawam la dal ki nga xam ne moo jëf fa mu def jëf ji fi jëf ja dal loolu may maf'ulun bihi comme ni mu ko waxoon ca misaal ma darabtu zaydan rakibtu alfarasa rakibtu assayaarata boo nee rakibtu as sayaarata fa maf'uulu bihi as sayaara li annahu waqa'a bihaa al fi'lu kon moom mooy al maf'uulu bihi boo nee atu al baaba fëgg naa bunt bi al maf'uulu bihi al baaba ndax moom mooy liñ fëgg wa idaa qulta xafiztu al kitaaba mokkal naa téere bi al maf'uulu bihi al kitaab kitaab ci boppam mooy maf'uulu bihi ndax mooy ki nga xam ne ci kawam la jëf ji dal kon loolu mooy buntub maf'uulun bihi boo nee qara'atul kitaaba alkitaaba maf'ulun bihi ba tey yumkin أن تقرب المفعول به مع أنه واضح إذا عطفت عليه اسم المفعول فتقول ضربت زيدا فهو مضروب gis nga léegi da nga àndaale beneen tëggi bi maf'ulun bihi da nga ne darabtu zaydan fa huwa madrubun rakibtul farasa fa huwa markubun léegi nag daal dina gën a leeral maanaam maf'ulun bihi mi ndax baatu mafal bi nga dellu si waat ci madroob ji ak markoob ji nga ne qara'tul kitaaba fa huwa maqru'un banaytul bayta fa huwa mabniyun euh, mafoolun bihi moom mu nekk ñaari xaaj di zahir ak mudmar zahir waxoon nañ la ko mooy misaal yooyu ñu la si jox zahirun ba tey nga ñëw ci mudmar mi moom itam mu nekk ñaari xaaj muttasil ak munfasil andi nañ leen faram-fàcce yëpp wax nañ leen bi nga xam ne moo nekk muttasil te mooy daraba nii daraba naa daraba ka daraba kii ba mu jeex ak bi nga xam ne moo nekk munfasil te mooy iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma ba mu jeex yooyu mooy euh, mafoor bi nga xam dafa nekk muttasil euh, kon ñu ñëw ci li'raab bi joxe ci misaal ci bi ضربني ضرب فعل ماد ضرب فعل ماد والنون للوقاية ما لا نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل النصب مفعول به يا غيغا خامني مو خاتي نون ضمير متصل لا في السكون مو نيك تي برب النصب مفعول به كون يا غوغي مفعول به والنون في الضرب نينك للوقاية داني واخني سو واخون ني ضرب ني تا اندي وونون ني غنا كون سو بابا داي نيك فعل بو خامتاني كاي ورا كسرة تا لولو داني كاي باج لان الياء لا يناسبها الا الكسرة ومعلوم ان كسر الفعل لا يجوز في اللغة فعل كان دوكو كسرة او تر لا ني كسرة كون دو داغان غا واخ ضربي lu may da nga fay mën a dugal nuun ga kon moo ñu ne laa budda min shay'in yaqiihil kasrata wa hiya an nuunu loolu moo tax ñu ko wax nuunul wiqaaya nuun gi nga xam ne dafay fekk fi'al bi ci ñu di ko kasra loolu la koy fegal da fegal ak kasra ba tey it boo ne woon dara bi ak darab bi lugatil arab dafay tekki ak lem soo ne woon dara bii jublu ci dóor nañu ma duñ xam ba xam ndax dangaa bëgg wax ne sama lem wala nga ne dóor nañ ma ndax wax ji su boobaa dootu dootu am maanaa lu may dangay andi noonul wiqaaya gi ngir ñu xam li nga bëgg a wax dëgg-dëgg loolu su boobaa meneen lënt la moo xam ne noonu gi dana ko ci dindi kon euh, noonu googu moom la ñuy tuddee noonul wiqaaya dafay fegal fi'al bi ci ñu di ko kasra waaye tamit tamit dana fekk am lënt ci li nga bëgg a wax darabana daraba fi'lu maadin mabniyun ala al-fath wana damirun muttasilun mabniyun ala fi mahalli nasbi maf'ulun bihi soo waxoon ne darab naa darab naa bi sukuunil baa'i saarat naa faa'ilan laa maf'ulan soo ne woon darab naa joo xam ne da ngaa baa bi su boobaa kon nun gi faa'il lay nekk waaye dootu nekk maf'ul dootu nekk maf'ulun bihi moo tax boo woon ما أنصفنا زيدا ولا غاني ما أنصفنا زيد فلا مفعول منك إذا كان زيدا هو الذي جار علينا سفك أنت سيد جباب موي كي جانغ سي سون كاو سوبا دا ني ما أنصفنا زيد سيد دي ما نوت سون ديغنتك موم waye su fekkene nak ñun ñoo jeng ci kaw zaid wa in kunna nahnu alladhi jurna ñun dey maali wuñ ci kaw zayd kon da gis ne masque gi nga xam ne moo ne ci diggante damir ji ak faal bi mooy euh, déterminer ndax nun gi fail la wala mafulun bihi la soo ko sukkoonee mu nekk bi bihi mu nekk fail boo ko sukkoonee mu nekk fail boo ko fataa nag mu nekk naa gi nekk ma bi bihi loolu mooy dara darabanaa ak darabnaa boo ne dara banaa bi fatihil baa'i kon noon gi ci topp day nekk maf'ulun bihi boo ne darabnaa bi sukuunil baa'i naa gi ci topp day nekk faa'il darabaka daraba fi'lu maadin mabniyun ala al-fath al-kaafu damirun muttasilun mabniyun ala al-fath fi mahalli nasb daraba fexal jaa ngi noonu fi'lu maadin la dañ koo binaa ci fataa kaaf gi ci topp mooy damir yi damir jooju la ñuy tudde damir muttasil dañ koo binaal moom itam ci fata waaye mi ngi nekk ci baraabu nasab bi euh, bihi ba ki daraba fi'lun maadin alkaafu damiru muttasilun mabniun alal kasr fii maali nasb li ñu waxoon ci daraba kan lañ cee waxaat xanaa li ñu wóotale mooy bii dañ koo binaal ci kastra ndax jigéen lay waxal bee dañ koo binaal ci euh, fata ndax góor lay waxal daraba ka ka googu dañ koo binaal ci fata daraba ki kaaf dañ ko binaal ci kasra lu ndax jigen lay waxal waye ñaari kaf yep damir mutasil la mansuubun fi mahalli nasbi maf'ulun bihi legi ma la ma farq bayna daraba ka wa daraba daraba ka al madrub mudhakkar wa daraba darabaki almadrubu muannasun loolu leer na nga na daraba kuma daraba fi'lu madin al kafu damirun mutasilun mabniyun ala damm fi maali nasbi mafulun bihi wal miimu wal alifu alaamatu tasniya boo nee darabakuma dangay wax ne daraba feelu maadin la kaf gi damir mutasil la dañ koo binaal ci damm mu nekk ci barabu nasab mafulun bihi miim mi ak alif gi ci topp nag mandargam tasniya la maanaam day wane ne ñaar ngay waxal mandargam ñaar la hal darabakuma Lebih rijaali am li nisaa yi waaw buñ ne la woon dara ba kuma moom ndax dañ ko jagalel goor ñi wala dañ ko jagalel jigeen ñi lay wax nga ne lahuma jamian dara ma fofu takale wul goor ak jigeen ñaar ñepp la la mën jël mëna nek ñaari goor ngay waxal mëna nek ñaari jigeen ngay waxal mëna nek ni goor ak jigeen ngay waxal lépp maanaam ben la dara ko ma rek koy daraba kum daraba fi'lu madin wal kaafu damiru mutasilun mabniyun ala dam fi mahali nasbi maf'ulun bihi wal miimu alaamatu jam'i zukur boo nee darabakum da nga naan daraba fi'lu maadin la kaaf gi ci topp nekk damiru mutasil ñu bi ko ci damm ci barabu nasab faayil miim mi ci topp dafa nekk dara mandargam mbooloo mu góor daraba kum daraba kunna daraba te fi'lu maadin mabniyun ala al wal kaafu damirun muttasilun mabniyun ala dam fi mahalli nasbi maf'ulun bihi wa nuunu alamatu jam'il inath daraba kunna da nga nan daraba fi'lu madin la dañ ko binaal ci fata kaf gi damir muttasil la dañ ko binal ci dam ci ma barabu nasab maf'ulun bihi nga ne nun gi alamatu jam'il inas dafa nek mandarga ci mbolo mu jigen comme ni mim ngee nekkoon mandarga ci mbooloo mu góor nuun gi noonu la nekk mandarga ci mbooloo mu jigéen daraba nii kii wax moom moo koy wax lil mutakallimi boo nee daraba naa nag lil mutakallimi wa maahu gayru kuy wax ba dafa ànd ak ñeneen ñu muy waxaaleel walla koo xam ne dafay màggal boppam awil maabda bi nafsa koo xam ne dafay màggal boppam daraba ka ki ñu wax waxanteel la dara daraba ka lil muqaatabi daraba ki lil muqaatabati jigéen di ñuy waxanteel bakuma ñaar ñi ngay waxantel mo xam ay goor lañ mo xam ay jigéen lañ bakum mbolo mu jigéen mi ngay waxantel mbolo mu goor mi ngay na mbolo mu jigéen mi ngay waxantel su ko defé loolu moy demir yi yi nga xamne moy ñi nga jàkkaar lool wala yow mi wax wala yow mi wax yu bala ñeneen amna ñoy waxal ñu fi nekkul nga ne darabahu darabahu lil mufrad al muzakkar al ghaib kenn koo xam ne góor la ba noppi nekk fi te ngay wax ci moom nga ne dara ba dóor na dara ba foofu feelu maadin la ñu bennaan ko ci fataha wal haa'u damirun muttasilun mabniyun ala dam haa gi damir muttasil la ñu bennaan ci dam waaye mu nekk nag fii mahali nasbi maf'ulun bihi ci barab boo xam ne dañ faa war a nasab maf'ulun dara daraba haa daraba fi'lu maadin mabniyun ala al fath wa haa'u damirun muttasilun mabniyun ala sukun في محل نصب مفعول به ضربها ضرب فعل ماد لا مبني على الفتح نكو بناء ci fata haagi damir la waaye damir muttasil la nga xam nañ ko binaal ci sukkoon mu nekk ci barabu nasab mafxulun bihi darabahuma daraba fi'lu maadin la dañ ko binaal ci fata haagi damir muttasil la ñu binaal ko ci damm mu nekk ci barabu nasab mafxulun bihi wal miimu wal alifu alaamatu tasniya comme niñ ko wax woon ca darabakuma ضرب هم ضرب هم ضرب فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور comme niñ ko waxee woon ci darabakum li leen wut la rek mooy fee dafa nekk lil muqaatabin fi nekk lil ghaibin loolu rek mooy seen farq darabahunna comme niñ ko waxee woon ci darabakunna bu dee kunna mooy ñi nga jàkkaar lool bu dee hunna mooy ñi fi nekkut kon loolu leer na foofu la ñuy yemale suñu bindu tey di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu ak yombal hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain